face to bi ñu doon xaar samedi passé le 28 janvier ñu ajoon ko ndax tiis ak naqar bi daloon ci askanub làmb Gaston production ne duñ leen bàyyi noonu woowaat nañu ñaari mbëri diggante Sa Thiès ak Reug Reug samedi 4 février 2023 ca Sorano daje woon nañu fa nag bu njëkk mu tàngoon lool waaye nag mbokk yi loolu présentation la woon bii nag mooy face to bu mag bi diggante Sa Thiès ak Reug Reug doomu Papa ak doomi Double Less doomu Guédiawaye ak doomu Thiaroye yi mi salle Daniel Sorano lay xewee en la télévision Futur Média la TFM et les réseaux sociaux Hey Gaston Production a ngi noonu ñi naa koy Moussa Ndiafat ñi naa koy Korias ñi naa koy Serigne Ndiaye numéro kii mooy doonu Mbaye Guèye kii moo doonu Maam Góor Guèye faga 1 faga 2 kii moo doonu Moustapha Guèye mbokk kii yee doonu Gris Bordeaux gis nga ko mi ngi ci lit avec frappe mi ngi moom Serigne Ndiaye numéro 2 mbokkam yaayam Samba Ndour gëj na ci lit bi nag waaye tey wàcc si na cey Korias ay la la Moussa Ndiafat Serigne Ndiaye numéro 2 ndeysaan 6 millions la Jax production Kajoor production Kajoor production di moins ak Ndiaye production ñoo tëgg làmb ji tey teg 6 millions tegal ko mbëri Serigne Ndiaye ngi nii dugg si waalo ñëw na comme luur ngañ seen ñëw na comme luur Pape Moro ñëw na luur Modou Jam Thierry ñëw na comme luur Libidor bu Ngunjaan ñëw na comme luur seen kumpa ñëw na fils de Badlin ñëw na saan ngel jonn déggal ma ngel jonn beneen booy bi Libidor bu Ngunjaan ñëw na Bulldozer ñëw na ah mbokk yi fii neex na tey de min gayndi mooy booy Petersen ñëw na Serigne Ndiaye ngi nii xanaa lii neex na kon <laughs> wallaay tey la tey ndeysaan Coriace a ngi nii rendi na mbokkam yaayam Samba Ndour rendi rendi rendi rendi paa ñu may ko mu yaatu waaw waaw Serigne ngi noonu ana Abdou Tall bu Modou Anta sans frontière Serigne ngi nii ma ngay daw <laughs> hey jaw roog hey doomu Fass bi hey Serigne Ndiaye numéro 2 mbokk yi doomu Fass baa ngi noonu laa ilaha illallah ma ngay yeggaayu Serigne Ndiaye numéro 2 ña ngi koy yuuxu naa yow la moom it moom la ma ngay yeggaayu ndeysaan ay waay Korias ay waay Korias <laughs> ay waay lii ndeysaan Serigne a ngoog Koriyaas a ngoog Moussa Ndiafat a ngoog ma ngay sotteeku yëkkati na loxo yor ñaari nen yëkkati na ko a tojandoo na ko wax naa la ko <laughs> ah tey la tey ay ca mbokk yi ginnaaw ba Serigne Ndiaye dugg see duudu ñëw na hey duudu toppal ci ginnaaw hey duudu ñëw na xataa fi bu joof yoor a ngi noonu xale baa ngi nii hey doomu Diofior baa ngi nii géew ba tout droit ndeysaan Xadaafi bu Diofior mbokk yi duudoo ngi noonu kaay ci ginnaaw xool ko nii lii leer na nañ duudoo ngi noonu hey Duudu Saane hey Duudu hey Duudu Saane dugg si na Xadaafi ngi nii doomu Diofior baa ngi nii ay waay tey choc amatina Doudou Sané ak Serigne Ndiaye laa ilaha illallah ca 6 millions yàlla cey jag sa production cey Ndiaye production ndeysaan cey Kajoor production ñoo waral lii ndeysaan mbokk yi duudoo ngi ma jaayu yëkkati na sangoor ya cey duudu ca ñeenti xibla ya cey duudu mbokk yi ndaanaan baa ngi nii cey duudu moo fi mujjee daan booy mbuur 25 décembre ci lutte avec frappe 3 combats la ci am 3 victoire am na combat le mars digganteem ak mbul bu tiwaawoon tey mu ñëwaat fii ne day jël si 6 millions yi Serigne Ndiaye ne maa bañ booy moroon ne maa bañ ndeysaan jërëjëf Khalil loolu baax

Ouzou Face bi ñu doon xaar samedi passé le 28 janvier ñu ajoon ko ndax tiis ak naqar bi daloon ci askanub làmb Gaston production ne duñ leen bàyyi noonu woowaat nañu ñaari mbëri diggante Sa Thiès ak Reug Reug samedi 4 février 2023 ca Sorano daje woon nañu fa nag bu njëkk mu tàngoon lool waaye nag mbokk yi loolu présentation la woon bii nag mooy face to bu mag bi diggante Sa Thiès ak Reug Reug doomu Papa ak doomi Double Less doomu Guédiawaye ak doomu Thiaroye yi Daniel Sorano lay xewee en direct sur la télévision Futur Média la TFM et les réseaux sociaux Hey Gaston Production kenn du moom lu mu diggee